étude stratégique. xam nga HCCT ak Sénat dañuy ni ci seeni kàddu dañuy génne ay rapport ay rapport yoo xam ne man ak yow xam nañ ñañ koy yóbbu duñu ko liir ñu koy bind sax am na si ñu bare ñoo xam ne duñu ko liir bu ñu amee institut national d'étude stratégique benn directeur ngay am ak ay pôle de réflexion yoo xam ne doo employé kenn à temps permanent bu ñu nee dañuy réfléchir sur la politique de transport au Sénégal ñooñu ñooy def appel à proposition recruter ay techniciens au niveau des universités au niveau des expertises ñu def un travail professionnel ndox loo qualifié qualifié expert yooyu gën la qualifié foofu xam li ñuy def travail boobu bu génnee ñu dajale ko xool stratégie yi ak taxawaay bi on le fera sur l'assainissement on le fera sur la politique industrielle on le fera même sur wàllu représentation ci li nga xam mooy société nationale yi parce que tey jii France dafa am benn agence spéciale boo xamee ni pour que nga dem di nekk PCA wala nga nekk ci conseil d'administration dañ lay seetantal pour que politique publique yi état di développer ak intérêt yi muy défendre boo demee sa conseil d'administration nga dem ndax tey ji boo jëlee koo xamee ne ab politicien kese la ñu yóbbu ko ci boordu Sonatel bu ñëwee ñu jox ko per diem yaa yu demee noonu mën na ko gëlëmloo ba du xool l'intérêt stratégique de son pays alors que si tu recrutes des technicien et des éléments yoo xam ne ki seen parcours professionnel am nañu mérite am nañu xam-xam boobu yooyu laa ni la moom la ñu war a def si réew te loolu boo ko doon def doo ci dépenser du yegg cinq milliards di nga am plus de vingt vingt cinq milliards de bénéfice boo xamee ni mën na dem duggi feneen mais est-ce que réforme assemblée nationale vraie réforme assemblée